221, une autre vision de la télé.

Nous Sénégal kase ñoo ko tax a ngir accompagner leen jàppale leen ci activité de développement ngir que li nga xamante ne moom lañ bëgg yor seen njaboot ñu mën koo am kon gàcce Nous avons di yokkaat beneen leeral muy que fonge yemalewul benn nit mm-hmm. Sénégal kase le

li taxoon président Macky Sall dénk la ko juumul ndax yaa ngi taxawu jigéen ñi yaa ngi taxawu ndaw ñi yaa ngi taxawu entrepreneur yi yaa ngi taxawu acteur de développement yi te loolu moo ko tax a jóg kon gàcce a ci liggéey bi ngay def di ñaan yàlla sas bii nga sasoo pour matale liggéey bi ci Sénégal gépp yàlla dimbali la ko ba may la ci ndam je vous remercie merci beaucoup du ñëpp la ñuy wóolu pour teg leen fa président dafa la tànn wóolu la ay jigen Senegal, dajal tànn wóolu la ne gis na Thérèse mu ne gis nga jambar macha allah sama cata sama catu mo ko ne gis na Thérèse mu ne gis nga ku bëgg jigen ñu ku leen bëgg a te defe naa président Macky Sall loolu do wër ku mëna composer ak jigen ni man leena a man leena jappalé ci social ni man lay dimbali seen loolu la président doon wër té amna ko ci yow naxuloo Macky Sall yàlla na sa promotion yokk te billaay wallaay tàllaahi boo jógee fii sa promotion dina yokk parce que nag ñun ay taalibe Serigne Babacar Sy ba Bakary dara maan yor bu wér de 22 ans te mësuñu koo teg ci suuf 99 laa jër wér du salaatu fatiha mësul tegu benn yoon. wante ñaan il faut ñu wax tuuti ci Macky soo nekk. son son excellence jigéen ñi Thiès a ngi nii tay bu ñu woon sa teeru yee ci chemin de fer bu Thérèse ñëwee fii ci ñun leneen la fiy fekk bañ daan woote ci stade ya di woote ci grande surface yi kon tey du doon lii kon dana raw nii tey mais tey woote yi ñoo bari am na ñu ma teewalu chemin de fer ñu nga foofa parce que mënuma fa woon bañ a teew ndax du ma dëkk biir Thiès yaroo fi màgge fi

kon am naa lu leer ci ne Thiès macha allah tabarkàlla Thiès di wii au président Macky di nuyu ak sant bu baax a baax sama xarit mon frère Mamadou Ndiaye Bambey mi nga xam ne moo ma wonale ak ajaaxadi mii bali lii am tey jii am may nuyu la presse waaye tamit di nuyu communicateur ak communicatrice yi nga xam ne ñoo ñu fi fekk yépp Adja Khady ñu ngi lay jaajëfal di nuyu ñëpp waaye tamit di nuyu équipe FONGIP yëpp ñëpp a ngi fii ma di leen di gërëm di leen di sant équipe opération équipe communication ñëpp ñu ngi fii may wax ne nag lii nga xam ne moo ñu fi dajale tey dafa fekk ne rek président Macky Sall mi nga xam ne moo ñu dénk FONGIP dafa am lum ñu sant ñu nekk ci FONGIP ku ko dégg xam ne mooy le fonds de garantie des investissements prioritaires xëy na ku déggaan FONGIP da nga yaakaar ne que ku soxla un million mënoo cee jot ku soxla deux millions mënoo cee jot dafa meloon ni FONGIP ay milliards la ñuy laaj moo tax ñu jóg ñu leen di xamal ne FONGIP bu ñëpp la le président Macky Sall qui ko xam équité et ñëpp tolloo ci li nga xam ne loolu lay def moo tax am stratégie bu muy développer pour faire ay lignes garantie portefeuille à travers nos mutuelles partenaires ma mun ci le crédit mutuel du Sénégal may remercier bu baax ak di gërëm ki fi bi nga ñëwee sama biro dañoo waxtaan ma ne la man du tëb rek ne la jox naa la temps dégg naa sa tur waaye su ma sañoon ñu dem Thiès ba ma xam ni ngeen toogee ni ngeen toogee nag dal na xel parce que jigéen lu ko ñor ñor na ko te jigéen ñi dañu sincère jigéen ñi dañu loyal mais si jigéen ñi dañu gëm seen bopp képp ku bàyyi sa soxla bàyyi sa lépp ñëw fii ci Thiès jóge ci ay kilomètre kilomètre ñëw tey ànd ak Adja pour lii ñu def ko ak FONGIP buñ la joxee xaalis di nga ko liggéey moo tax balaa maa sori am na ku fi annoncé léegi 30 million déedéet fuul bii doo ko gis di ko jox 30 millions Adja dinañ tàmbalee ak yeen 50 millions merci jërë ngeen jëf xam ngeen ñu wax loolu président Macky Sall lum ñu sant mooy stratégie yi nga xam ne moom la teg Sénégal ak liggéey bi nga xam ne moom la ñu sant mooy fu jigéen nekk fu ndaw nekk ak fu promoteur nekk koo xam ne da nga nekk petite et moyenne entreprise nañ la jàppale ba boo nekkoon plan A nga continuer dem beneen stade B looloo waral tey ñu ne nañu tàmbale ak yéen li nga xamante ne moom mooy enveloppe moo tax ñu ne nañu continuer nañu tàmbali ak yéen li nga xam moom mooy enveloppe cinquante millions bi nga xam ne dinañ ko loger crédit mutuel xaalis bi sax mu nga fa déjà lii ñu def ak yéen nag def nañ ko fu bari ci senegal mën naa lim suñu yaay Adja Korka Chari Chaton jigéen ñi béy ceeb FONGIP jox na leen cent millions mën jigen yi nga xam ñu ngi ci Louga ak ndaw ñi FONGIP dugalal leen 500 millions mën jigen yi nga xam ño ñoo nekk ci île yi Foundiougne foog naa fa la njëkk a intervenir Kaolack ba demb demb ma ngi won avec la mutuelle dooleel jigen fi ci biir Thiès FONGIP jox leen 100 millions ñun li ñuy liggéey c'est dans le cadre du refinancement et de la bonification motax tay liñ leen di ñaan de mooy Adja Khady boo leen fi pare yéen a xam seen mbootaay nan la demee ngeen réunir waat def seen ciblage travail ci ak équipe opération yi nga xam ne ñu ngi fi. de Dakar ak Thiès nga xam ne moo nar a traité dossier yi nekk crédit mutuel. bu leen neexee ngeen def par GIE bu leen neexee ngeen def ko individuel mais yéenay.

li nga nous ne moom la ñuy def tamit du cadre programme boo xam fonds fongib da ko la relance des activités économiques dans le pays après la covid banque mondiale accompagne ci fonds fongib ñu mobiliser 25 milliards 25 milliards et 12 milliards 500 qui ci banque yi la jëm 12 milliards 500 yi dem ci li nga xam moom mooy sfd yi mooy tax fait ñu mun a liggéey ak yéen lii ñu bëgg def ak bu loolu passé ñu am un programme boo xamante ak la banque africaine de développement 20 milliards ci 20 milliards yi boobu aussi 10 milliards yi ñu garantis ci garantie banque yi la dem beneen 10 milliards yi dem ci li nga xam moom mutuelle yi pour ñu gën a mën a jàppale li nga xam ne ndaw ñi ak jigéen ñi nga xam ne yor ay petits projets donc lii ñu leen di wax mooy dañuy tàmbale ak yéen rek boo leen doxalee benn ñu dox ñaar nous leen doxee ñaar ñu dox boo leen taxawee nag ñu randu dem ginnaaw loolooy lan nuñ ko liggéeyee rek nañ ko fay ngeen mën a jotaat lu ko ëpp ngeen xool ci Adja Khady mii tey parce xëy na yàgg ngeen di daw yéen a ko wax mais xëy na lii tey du loo xamante ne yéen a ngi ko doon xaar te yàlla xam na ne que suñu yéenee ëpp na cinquante million si yéen donc ñuy wax ne que rek dañ leen di gërëmaat bu baax di leen di sant di tamit gërëm suñuy kilifa. ñi nga xamante ñom ñoom ñoo ñu permettre ñu mëna def ce déploiement national pour mëna fekk askan wi mën leena a pour ñu mëna contribuer à l'émergence du Sénégal. Adja Xooja yow tamit dañ lay gëreum sante la ci teew bi nga xamné dañ ko def cofeel la bo am ci ñun waye tamit mbokk go xamante ne yaa koy dox suñu digënté ñun ndax bu la neexoon nga romb dem waye wax dëgg fa yalla li nga ñew teew neex nañu torop dañ la ci gëreum di la ci sante dila wax ne ko aussi Adja Mariam Faye Sall képp kuy jigéen rek di fi dox lu bax da ngay roy ci mom yalla deug rek la bëgg mu ngi def ci jumaa di def ci hôpital yi di jàppale new di doole yi boole ko ak pat ak discrétion ak efficacité donc loolu bu koy def nek soxna yi njitu réew mi képp kuy jigéen te nek ci gouvernement bi rek da nga a roy ci mom rek mais mënoo ko dab